laqim lisaani waxlulan minhu lxuqad wajaalhu zakiran wa shakiran abad wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen bu baax te di di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne di nafarante ak yeen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu toll ci téere bi nga xam ne moom la tuddee Munawwiru Sudur nga xam ne suñu bind bi weesu ñi ngi taxawoon ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi doon wax ne na ngeen xam ne xam-xam ak jëfe xam-xam niki noonu ak ay teggiin loolu mooy ki nga xam ne li nga xam ne mooy xëccal nit ki ak mat maanaam nit ki su fekkee ne bëgg naa mat na fexey di sàkku xam-xam waaye bu amee xam-xam ba pare na koy jëfe waaye bu koy jafe itam no koy teg ci ay teggiin sëriñ bi di wax ba tey it ne képp koo xam ne ñett yooyu ñu tudd muy xam-xam ak jafe xam-xam ak ay teggiin làqu ci dara dara te it wutu ko nee na na xam ne moom moo boppam na xam ne jafe-jafe bu mu am moom moo ko teg boppam ci tomb boobu la ñu taxawoon suñu bindub tey di sof fi ñu taxawoon rek di continuer sëriñ bi di waxaat ba tey ne yaa saaili yow sama aji laaj an ayi diinin ci jan diine yustafa lañuy tànn indal ilahi fa suñu boroom haaka jàppal diinal mustafa diina yi ku ñu yonante ba sallallahu alayhi wa sallam salla yal na dolli allahu yàlla alayhi ci moom bi te dolli ko wóolu fi xasbihi ak ca kurélam ba kama maxa fare malaani sama yeddaange ayqin wóoralal bi anna diina ndaka diine inda al ilahi fa suñu borom bi wa taala islaamuna mooy suñu diinay lislaam ji laa diinu zi malahin du caageene diini way foña du caageene diinay caaxaankat ya is ngir kullu man képp ka xam ne daana diine woona bilaahu ci lu du diine yonente alayhi wa sallama turida nee kon ñu dàqeef ko walan yarida te du rot lil jinaani ca àjjana abadan mukk sëriñ bi radiyallahu anhu mi ñuy wax foofu ne yow nga xam ne yaa may laaj jan diine laa war a tànn ci diine yi nga xam ne mooy diine yi suñu borom wàcce sëriñ bi nee na maa ngi lay joxoñ maa ngi lay digal nga tànn diine yonente bi sallallahu alayhi wa ndax diine jooju mooy diine ji nga xam ne moom lañu suñu borom subhanahu wa taala tànnal waaye mooy diine jiwér wér nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yonente bi bi ñëwati ci ginnaawam kon nee na na nga xam ne loolu mooy diine ji ji nga xam ne moom lañ war a topp waaye du caage ne diine ñi nga xam ne mooy caaxaankat yi wala diine ñi nga xam ne dañuy euh, wutal yàlla ndend wala diine ñi nga xam ne dañuy euh, wutal yàlla Euh, ñetti yàlla wala ñaar wala yu demee noonu yooyu yëpp ne na du diine yi nga xam ne moom la ñu war a topp nee na diine ji nu war a topp daal mooy diine ji nga xam ne moom la yonente bi andi te mooy diine ji nga xam ne mooy kennal suñu borom bi subhanahu wa taala mooy diine ji nga xam ne moo ñuy xamal li nga xam ne mooy tawxid waaye mooy diine ji nga xam ne moo ñuy xamal li nga xam ne mooy lislaam waaye diine ji nga xam ne moo ñuy xamal li nga xam ne mooy lixsaan sëriñ bi radiyallahu anhu nee na diine jooju moom laa joxoñ moom laa leen digal ngeen topp ko moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala di wax ci alquran ne inna diina inda allahi diine fa suñu borom bi wa taala de mooy diiney lislaam di wax ba tey ni wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa min al xaasirin suñu borom wa taala mi ñu waxaat ne Euh, képp koo xam ne jàpp na lu dut islaam muy diine jeneen diine ju mu jàpp ju dut lislaam suñu borom ne na kooku loolee kenn du ko nungul te ëllëg na xam ne ca way pertaange njalay bokk kon loolu moo ñuy wéralal ne diine ji nga xam ne mooy diine yonente bi sallallahu alayhi wasallam ji mu andi mooy diine ji wér ji nga xam ne ci la ñëpp war a tënku ndax ginnaaw diine jooju genn diine dootul ñëw ndax yonente bi ko suñ borom wàccee moom mooy ki nga xam ne moo xat xatmu mooy mooy xaatimu annabiyin mooy ki nga xam ne moo tëj mbooleem yonente yi ba ab yonente dootul ñëw ginnaawam téere bi suñu borom wàcce ci moom di téere bi nga xam ne moo mujj ci téere yi ab téere dootul wàcce ginnaawam waaye diine ji ko suñu borom booleel mu ànd ak moom muy diine ji nga xam ne moom mujj te diine dootul wàcc suñu gin euh, ci ginnaawam tayit muy diine joo xam ne suñu borom subaano wa taala moo nu ko tànnal ndax suñu borom mi ngi wax ba tey ci alquran ne inna allaha astafa lakum ad-diina fala tamuutunna illaa wa antum muslimun yàlla suñu borom bi mooy ki nga xam ne moo leen tànnal diine jii andil leen ko kon bu leen faatu mukk lu dul mu fekk leen ngeen gëm diine jooju waaye bu leen faatu mukk lu dul ngeen nekk ay jullit yu wér yoo xam ne diine jooju ngeen di topp di jëfe li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale waaye di moytandiku li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu bañ caa tàbbi oh, suñu borom di ba tey ci alquran ne ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun na ngeen ragal yàlla seen dëgg-dëgg ragal yàlla te bu leen faatu mukk te nekku leen ay jullit bu leen faatu mukk te faatu leen ci diine yonente bi sallallahu alayhi wa kon loolu lépp ay euh, tegtal la yuy wéral ne diine yonente bi sallallahu alayhi rek mooy diine ji nga xam ne mooy diine ji wér te mooy diine ji nga xam ne képp ku nekk ci kaw suuf baba ba saa taxaw ci diine jooju nga war a tënku li muy digle moom nga war di jëfee waaye li nga xam ne moom lay moytandiku loo moom nga war di euh, moytandiku moo tax suñu sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ci xaside yi ba tey ni diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu diine judul diinay lislaam de man ahmadu duma ko sant man ahmadu duma ko topp waaye nag diine jooju moom la ñu ñëwaat yeesal kon andi ñu lu bees waaye diine joojee nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam andi woon moom lañ taxawaat di ko di ko yeesal moom lañ taxawaat li nga xam ne moom la ci nit umpale euh, di ko jaxase ñu leen koy leeralaat waaye sosuñu lenn lu bees euh, kon loolu lu ama amam solo la sëriñ bi di continuer ba tey rek di wax ne haakum jàpp leen nizaaman aw way wala ab yaxal naafian bu di aji jariñ muxaddamatan bu di biñ jiital ci diini maaxin ci diinay aji far koo xam ne xat xaddamahu jiital na ko rabbuhu boromam sëriñ bi ne kon jàpp leen ma wayal leen fi way woo xam ne dama koy dama leen koy jiitalal waaye dama koy def ngir jëm li e, diine ki nga xam ne mooy aji far kéefar te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko yónni suñu borom bi subhanahu wa moo ko jox euh, euh, risaala ngir mu ñëw war koo tasaare fi nga xam ne mooy ci mbokki euh, jullit yëpp sëriñ bi ne sumaatuhu maa ngi ko tudde moom téere bi munawwiru suduuri lay leeral dënn ya maanaam aji leeral dënn ya wala aji leeral xol ya la dal manazili fa kër ya waa inda duuri ak ca kër ya ba tey kon sëriñ bi ne na téere boobu maa ngi ko tudde li nga xam ne mooy leeral dënn yi wala li nga xam ne mooy leeral xol yi ndax la nga xam ne moo ëpp solo ci doomu aadama bi muy ab xol ci ab dënn la ko suñu borom subhanahu wa taala def kon lay leeral dënn ya loolu rek mooy leeral xol ya waaye nag na ngeen jàpp way yi nga xam ne moom laa leen bëgg a wayal ndax mooy leeral seen xol yooyee nga xam ne Euh, bu gumbaa rek euh, du ngeen xam fan ngeen di tegati seen tànk waaye du ngeen xam naka ngeen di jaamooti euh, suñu borom ndax yonente bi mi ngi wax ci hadis ne am na ci doomu aadama benn lumb woo xam ne moo ëpp solo ci doomu aadama saa bu baaxee doomu aadama bi lépp loo xam moom lay jëf ak topp yàlla bu muy def mën naa baax mën naa jaar yoon waaye saa bu man naa loola mën naa waral doomu aadama bi jenn jëfam dootul baax ngir la nga xam ne moo koy fonde dëgg-dëgg moo yàqu moo tax mu ne ala inna fil jasadi mudga iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb nee na xol mooy li nga xam ne moo nekk ci doomu aadama bi saa bu baaxee doomu aadama bi léppam baax waaye saabu yàqoo doomu aadama bi léppam day yàqu sëriñ bi nag nee na téere bi nga xam ne moom la ñu wayal mi ngi ko tuddee sudur mooy li nga xam ne mooy leeral xol yooyee kon téere bu jara jàng la waaye bu jara xam bu jara jëfe li nga xam ne moo ci nekk la mu wax ne yaa ayyuhan nabilu yow aji xellu ji daa maa la nga xam ne yan faddu day jeex wabri te nga sàkku munan xéewal euh, fii abadin ci euh, sax laatan fa dugag du jeex wala wabki na nga sàkku euh, munan xéewal goo xam ne laatan fa du du jeex fii abadin mukk sëriñ bi nee na yow mi nga xam ne yaay aji xel ji kon na nga li nga xam ne day jeex li jeex mooy lan mooy àdduna ji nga xam ne ci la ñu nekk muy lu gàtt gàtt waaye nga sàkku la nga xam ne du jeex mukk la nga xam ne du jeex mukk te mooy ëllëg yow ma ga nee na na nga sàkku loola te bàyyi li nga xam ne mooy àdduna di loo xam ne day jeex moo tax ñu doon wax ne kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiri sabil nee na na nga nekk ci àdduna mel ni ab ab ku tumranke ku tumranke ci àdduna wala nga mel ni kuy jéggi aw yoon diir ba nga xam ne moom ngay def ci diggante ba ngay jéggee aw yoon bi gaawaay wa muy gaaw ne na soo jàppee àdduna noonu def fi lu ñaaw loo xam ne bu ëllëgee boo taxawee suñ ci kanam suñu borom subhanahu wa taala di ko rus wala nga koy rëccantal ne na loolu mën na la cee bañ a fekk kon noonu rek lañu war a e, jàppe àdduna moo tax suñu borom di wax ne maa indakum yanfaddu wa maa inda allahi baaxin li nga xam ne moom ngeen yor de mu nekk fii ci àdduna lépp day jeex waaye lan mooy des la ngeen jiital yóbbaloo ko euh, ca suñu borom loolu rek moo leen di dese kon jëf ju baax ji ngeen di jëf ci àdduna mooy li nga xam ne loolu rek moo leen di dese waaye leneen lu ngeen jëf loo xam ne euh, jëfu leen ko ci yoonu yàlla wala defu leen ko ci lu baax nee na loolu lépp na ngeen xam ne fii rek lay yem waaye du leen amal benn njariñ ëllëg kon nit ki àddunaam daf koo war a jël Euh, ngir lan ngir jënde ko li nga xam ne mooy alaxiraam waaye bu mu jël alaxiraam mu ko jënde ko addunaam nay def loo xam ne ay yóbbal lay doon yoo xam ne daf koy jiital ngir bu demee ëllëg mu man ko faa fekk ngir dundub adduna gi fa gàtt lool waaye li muy gàtt gàtt nag nit ki war na cee def ak farlu bu baax a baax a baax ndax la muy yóbbuloo ëllëg ci adduna euh, la koy amee moo tax suñu borom wabtaxi fima ataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min addunia na nga fàggandiku ci li nga xam ne moom la la suñu borom jox na nga ci fàggandiku la nga xam ne moom nga yóbbaloo ëllëg yowmal xiyaam waaye bul fàtte sab cër ci àdduna kon sab cër ci àdduna mën nga koo boole ak yóbbal bi nga xam ne moom nga war a euh, yóbbuloo ëllëg yowmal xiyaam defar sa àdduna mu jàkk waaye boole koo bañ a fàtte euh, bis ba nga xam ne mooy bis bay sax te mooy continuer ndax àdduna moom ab jaaruwaay rek la nit ki daf fi jaar di di dem kon nit ki bu xamee loolu rek war naa xam ne àdduna euh, am na solo ci genn wet ndax fi la nit ki di fàggoo lu mu yóbbuloo ëllëg waaye it su fekkee ne nit jëfandikoo ko noonu di jëfandikoo ci ab safaan bu boobaa lu ñàkk ñàkk solo lay lay doon moo tax sëriñ bi ne mulaaziman muy aji taqoo sunnata xayra rusuli sunnaas euh, ngën di yonent alayhi yal na nekk ci moom xayru salawaatil mursali ngën di xeewali aji yonni ko is ngir fittibaaha ci topp sunnaam moom yonente bi sallallahu takunu ngay nekk saaliman di aji mu mucc wa fi ci wuute ko euh, ci wuute sunnaam takunu ngay nekk zaaliman di aji Euh, tooñ kon nee na ngay nekk di koo xam ne euh, da ngay topp sunnaas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye na nga nekk koo xam ne li yonente bi sallallahu alayhi wa ci ngay nekk di ko euh, di ko di ko di ko jiima gëstu waaye boo ko gëstoo ba xam nga koy jëfee ndax nee loolu ci la nit ki di mucce waaye leneen mënta muccal doomu aadama bi kon gëstu li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi muy diine ju leer nga gëstu ko jim koo xam jiima topp li nga xam ne mooy digle ya te bàyyi tere ya nee loolu ci lañu ci di muccee waaye bu fekkee ne dafa wuute ak def loolu rek nee na boobaa nit ki ko dal moo ko teg boppam waaye mooy ki nga xam ne moo tooñ boppam moo tax mu ne fal maahiru aji xellu ji allabibu aji xellu ji ba tey man mooy ki nga xam ne yanzuru dana xool fii amrin ci ndigal mu koy jëfe wa nahyin ak tere mu koy bàyyi zaaka loolee de xayrul xirafi mooy ngën gi mécce euh, nee na ki nga xam ne mooy yeewu day ki nga xam ne mooy aji xellu ki nga xam ne moo am am xel te jëfandikoo am xelam mooy ki nga xam ne bu nekkee ci àdduna day xool li nga xam ne moom lay ko suñu borom subhanahu wa taala diggal te jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi mu koy jëfee ni nga xam ne noonu la ko diglee waaye muy xool li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala tere te jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy bàyyi loola ndax ci euh, doone xeet yi nga xam euh, wi gën ndax suñu borom day wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar kon bala ñoo nekk xeet yi nga xam ne moo gën ci xeet wi mooy dañuy digle lu baax waaye di tere ab safaan waaye di jëfe lu baax waaye di moytandiku li nga xam ne moo di ab safaan kon ku xelu dëgg-dëgg noonu lay def mooy day xool ndigle yi mu waaye tere yi mu koy moytandiku uh, uh, bu baax a baax a baax uh, tere yi lépp lépp moom lu war la waaye ndigal yi moom jëf ci sa bu bàyyee li ko suñu borom subhanahu wa taala tere lépp te ndigal mu ci jëf moo tax mu ne fa kullu man képp ka nga xam ne yan zoo dana xool ci dunya ci àdduna bila tafakkurin ci lu dul xalam minal xalaami minal xat ku bila jéngeem nan ko biha ci àdduna ne na xam ne de da ngaa saxal di xool ci àdduna maanaam euh, do di xool di dund ci àdduna te doo xelaat li ne xam ne moom la dund di gaaw ak euh, yàggadi gi nga xam ne moom la àdduna yàggadi maanaam yàggadi gi nga xam ne moom la àdduna yàggadi dana koo ci xool di ci euh, xool ni nga xam ne noonu la ñuy dunde li ak ni ñuy faatoo gaaw gi nga xam ne moom la képp koo euh, loolu li suñ borom fii doo xelaat ngir man cee bàyyi xel li ngay jëf ak li ngay bàyyi ne na képp koo xam ne doo def loolu nga xam ne euh, tëj nan la ci àdduna yi nga xam ne àdduna la joo xam ne lu gàtta gàtt la waaye àdduna la joo xam ne day mel ni ak gént nit ki li mu fii def ci diggante bi lu gàtta gàtt la kon nag ay sellal ko waaye na fexey rafetal ko bu baax a baax a baax a baax mustarifiina bi afkarin wa ayatin euh, borom xam-xam yu sell yi Euh, di xereñ lool aw ka zillin zaa'il wa inna labiba bi misliha la yaxdau nee na adduna de dafa mel ni ak gént goo xam ne bi daf ko gént ci ay nelaw euh, ñi nga xam ne noonu la gént bi di leen ni nit gént bi ak ay nelaw ne adduna noonu la mel ngir nit ki daal day mel ni diggante bi muy génte ak bi muy yeewoo gàtt bi nga xam ne noonu lay gàtt rek nee na àdduna day mel ni noonu la gàtt wala mu mel ni ak ker boo xam ne daf laa keral nga toog fenn ak ker keral la ba yàgg ker gi déplacé laaj nee na diggante boobu ni muy gàtt nee na àdduna noonu la gàtt léegi nag nee na ki nga xam ne mooy ki am xel mooy ki nga xam ne àdduna boobu du ko wër mukk waaye du ci bàyyi xelam mukk ba jël léppam euh, jox ko ko bañ a ko li xam ne mooy dib ba nga xam ne mooy ëllëg ñëw keneen ci xukamaa yi ba tey wax ne addunya kalmaa'il maahdi kullamaa yastahibu shurban izdadaa shahban nee na àdduna de dafa mel ndoxum xorom ndox moo xam ne dafa weex xorom xat nee na noonu la àdduna di saa booy gën a naan ci ndox mooma rek nee day mel ndox mooma daf lay yokk aw maam ndox mooma daf la mel kon nit ki saa buy gën a xuus ci àdduna di gën a fàggu am ko di gën a dajale di gën a baril alalam nee na day mel ni gën a xër ci dajale boobu day gën a xër ci bëgg alal day mel ni gën a xër ci bëgg daraja ba nga xam ne saa bu ko bisam di dikkal euh, daf koy def lool lool xam ne moom la yitte woowoon def ko léppam loola dafa am solo te mu la nga xam ne moo ëpp solo bu baax a baax te mooy euh, di fàttali ko suñu borom subhanahu wa taala waaye di ci li nga xam ne la suñu borom subhanahu wa taala euh, bind keneen waxaat ci xam-xami xikam yooyu ba tey alxayaatu maliatun bilxijaarati falaa taxtasiru biha bal ijmaaha wa fi biha kulla man tasxalu bihi naqas najaaxi nee na dund gi de dafa doon dund ci àdduna bi dafa doon dund boo xam ne bu bari ay xeer la yu mën a fasal doomu aadama bi ba daanee ko ci kàmbug sawara waaye nee na ki nga xam ne moo xel day mooy xeer yooyu yu bari yooyu nga xam ne moo koy mën a fakkasal day xool ba daal benn xeer waaye day jël xeer yooyu di ko dajale di ko dajale ba man caa tabax ab euh, échelle boo xam ne euh, euh, ak ak ak ak cefe waaye jëlee jëm li nga xam ne mooy ndigal suñu borom subhanahu wa taala kon yooyu yëpp day tegtale ñàkk solo boo xam ne àdduna ñàkk na ko solo ci ak wet waaye am solo boo xam ne suñu ci jëfandikoo xelam mën na koo am solo ci jëfandikoo ci jëfandikoo xelam itam mën na ko déggee kon loolu la ñu andi woon tey di tuur bu baax di déglu wax dëgg yàlla di wax الصحابة وسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey